Euh, ce mot qui revient euh, euh, la pensée unique. oui mais c'est normal xam politique parfois nga frustré parce que Dieu moo le gën populaire. voilà ah mais c'est ça la réalité. Hmm. non mën na see nekk. bien sûr waa taxaw Sénégal mën nañu frustré parce que dañuy jàpp ni ci jamono bii nii. Hmm. waa Pastef ñoo leen gën populaire wala Ousmane Sonko moo gën populaire seen candidat. wala hmm. Bassirou Diomaye Faye moo populaire, a populaire seen candidat. c'est normal dans la scène la scène politique lu mel ni dafay am. Hmm. dafay am surtout que Khalifa bumu mu bumu doré politique ak Ousmane Sonko daanaka du benn. Hmm. Khalifa y a ci la scène politique. Hmm. mais est-ce que Khalifa tey dina non nangu politiquement Ousmane Sonko boo xamante ne yàggul bu mu donc euh, ci kuje politique bi mu ñëw ba ko dayo. est-ce que quelque part amul jalousie est-ce que quelque part frustration mota ñuy gis au Sénégal surtout dans l'opposition dans le même camp maintenant bu féké yo da nga né ñi dañu bëgg installer la pensée la dictature de la pensée unique légui vous woté manifestation yo kon bul ñëw yo bul ñëw yo xaaral pour yow nga woté sa propre manifestation

Mme Diagne euh, Mariam Ndiaye euh, bu li convention des jeunes reporters du Sénégal c'est une tentative d'assassinat exemple euh, c'est de la violence à la haine à la rancœur qui ne font que verser dans la ruse le mensonge et la manipulation Nous ndat analyser le fait que le lepp déparé, si li que Ousmane buñ la micro au lieu nga nga wax li nga xam information yi nga am d'abord mais yow da ngay xababal bay wax lo xamante non seulement wóoru la ba paré yow amo droit wax ko sëñ bi. Hmm. c'est très attention. Hmm. le cas de Maïmouna Ndour fay bo xamante agression la agression ak lu mën ta doon que ça soit intentionnel que ça soit. même tentative d'assassinat c'est agression agression d'abord nga koy il faut que qu'il fasse très attention c'est une femme nga ñu micro que ça soit Madiambal que ça soit Barthélémy Diaz que ça soit Sehir Misek que ça soit migi Maram nous ñëpp ci presse bi comme nous ni nous, ko c'est ce qui est dangereux D'abord, lay wax benn affaire révélation là lay jox ils n'étaient pas sur les lieux du crime l'agression a eu lieu à quelle heure tard dans la nuit trois heures du matin mm. waxuma ñoom ñëpp kan moo fait ñom ñoom ñëpp ñu ngi doon nelaw ci sen sen léegi sen sen lali que ça soit Barthélémy Dias que ça soit Migui Maremdiaï, que ça soit quelqu'un ak personne d'entre eux n'est témoin oculaire des faits de l'agression de de Maïmouna Ndour Faye kenn wu ko mais pourtant jël nañu un micro di wax loo ce sa wóoru leen loolu le mensonge c'est ça mentir gratuitement malheureusement au Sénégal on vit on vit quotidiennement de ces arts de pratique nit dina toog ci plateau di wax loo xamante pas ko mais tellement avec confiance yow da ngay qui ni ce lu muy wax ni dëggal alors que du dëgg mais nous, sommes tous les Sénégal mm. mm. nous tous on se connaît on connaît qui est qui. maintenant si nous sommes des tentative d'assassinat comme l'a dit un journaliste. Mm. Migi tentative d'assassinat alors que nous, sommes là, il y a une enquête en cours. la sûreté urbaine. Nous il y a une enquête en cours a 7 TV pour faire plaire. Pour... Mais c'est ça la réalité. non, c'est ça. Midi Marem Bamba Kassé, Ça dit que qu'ils veulent faire plaire à ce groupe, ce groupe euh, euh, Bobo, cette TV. Moi, je suis dit que oui, tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat, je as fait que je tu les premières, les premières, euh, comment dire, les premières informations de l'enquête là la révélé, pas comme Mourou léegi yi mais ah, alors que enquête bi ñoo firnde ni que waji ko agressé na yi ay carte d'identité kessé la la ko déssé ak ak ak. Euh, waaw euh, ba fa la ko là. waaw la ñu wax tentative d'assassinat bay ak enquête bi les premières informations de l'enquête lu mu révélé ak ñom lu ñu taxawon ci buntu cette tv di mais ni ñu fait mbir mi kay gatché la actuellement c'est ça la réalité. parce que Pourquoi Pourquoi dafa ko dafa ko xaar pourquoi euh, pourquoi bi dafa xama xama xama Pourquoi bi Pourquoi Pourquoi buntu xama bi il faut que ñu waxanté ñu waxanté hmm. deug hmm. perception perception non non du perception lolu affirmation la. c'est hmm. du perception non non perception da ngay je pense que je pense que nous or agressé la dame là je pense que. non, non perception la pensée oui madame, n'est nekk un peu dans le subjectif il faut pas être trop objectif sur l'agression parce que fait que nous on est des intellectuels que nous gënuñu jàng ku joxee avec l'expression qu'il utilise tu sais que. non ils ont affirmé. Bamba Kassé a affirmé Migi Marim a affirmé Pape Djibril Fall a affirmé. Barthélémy Diaz a affirmé Diagne Cheikh ils ont affirmé mais même dit que même. non ah, bah. non non ils ont utilisé d'autres ils ont utilisé d'autres connotations logiques en disant que ils ont voulu dañoo bëggoon jël parce que il y a des gens qui veulent installer la terreur parce que Maïmouna ah, Ndour Faye yàgg nañu ko menacé te xam nañu ñu ko doon menacer ci à lañ ils sont passés de de menace à l'attaque mais loolu lañ doon wax li melni melni daf leen ñom ils ont affirmé mota mané la c'est pas une pensée mais dañoo affirmé ils ont affirmé ni que ñu agresser Maïmouna Ndour non seulement ñom sendi ñom ñoom xam na leen parce que quand on ba que di euh, installé la dictature de la pensée unique ils ont agressé donc yow fait nga tiye témoin oculaire Barthélémy Diaz war nañu ko woo Madiambal war ko wo se Yérim Seck ñoom mi ngi war que devant la barre ñu dem témoigner information bon, comment la sécurité urbaine ça, amu ko se bi avons yom seen affirmation yi ñuy affirmé woon ci buntu 7TV sûreté urbaine sa amuko amul information donc ta soxla na soxla na information yoy mota tax sûreté urbaine war na leen ñu dem témoigner fan ni jëlé information bob parce que yoy yaay joxé information bo xamanté man mii enquêteur sa awmako

alors mu ne lu exactement par rapport à hein? li nga jamais ne cette agression bu euh, ki n'a xam ne MNF di ki jamais xam que l'agression de lu agression du politiser au nom de quoi. c'est comme si euh, c'est la seule euh, personne. de pour faire des récupérations politiques et des règlements de compte voilà les deux expressions dañoo jël l'affaire de Maïmounandour Ndour pour faire pour faire des récupérations politiques et aussi pour des règlements de compte solde et comptes parce que il croit que si nous tuumalee waa PASTEF ni que ils sont les investigateurs de cet euh, euh, euh, acte de barbare nous vérifions les la ñuy jaaree bañ leen ba voté ci élection yi di c'est ça des récupérations et aussi solde des comptes Gueule, agression simple agression le chef du quartier là la révélé agression voilà bi passé ma na euh, deux mois si na moy moy moy la euh, mooy. ci euh, moom quartier am fa nek ci biir quartier bobu xam quartier bobu nu mu demee nee ne c'est la énième agression bu xewee ci quartier bi légui maymu Ndour fay mo gën am importance ñu ñu agresser parce que dafa am tour parce que borom tour la ku siw la moo tax agression mo moo yenn mama ñeneen ñu ñu jotone agresser ci quartier boobu. Hmm parce que Maimouna Ndour Faye voilà kumba kumba am amday, am ndey ak kumba bu amul ndey parce que mom machallah dafa am tour Moi, nga gis tous les commentaires oui témoignages il faut que enquête soit l'affaire. pour <laughs> c'est comme <laughs> man gis nga gis nga lu ñuy wax ni ci la journaliste Maimouna Ndour tout la consoeur man méttiwutuloon naa l'agression. ñu mettre le franchement. franchement on s'en office. mais. Euh, comment c'est je sëñ propagation bu ñu def ci agression am bu ñu ko defoon ci ay yi mars 2021 mille enquête am. Hmm. je t'assure gis nga propagation bu ñu def ci Maïmouna Ndour Faye bu ñu ko defoon ci yi parce que xale ay xale faatu nañu fi ci ay manifestation ki agression la machallah allah mais propagation yi ñuy def ci mom buñ ko defoon ci xalé yi yalla xam na ni ñu am enquête indépendante ah Nous ñu xam les responsabilités Nous avons eu mars 2021 au juin 2023 mais defuñu ko c'est comme si même Ndour Faye moo gën xale yi ñuy jotoon boom ci ces événements là au nom de quoi ba jël l'affaire sa di ko politiser moomalee ko benn camp ne hmm. ñoom ñoo def loolu alors que sûreté urbaine wala une enquête ci dossier boobu sax amuñu ces informations là hmm. yéen ngeen toog buntu 7TV di wax lu leen neex

mais nga bañ a xuus way tentative d'assassinat. assassinat yow si retire pour nga xamni une tentative d'assassinat. la man dama japp ni enquêteur moy ne li méngoo na ak tentative d'assassinat, ou pas ou simple agression mais ay journalistes tok ci buntu 7TV di tentative d'assassinat. assassinat la dañoo bëggone jël ay bakanam. woy ñi ñi installer la dictature de la pensée unique ñoo nek ci ginaaw lolu. C'est mm. C'est ça la réalité ces ces affirmations ces allégations non fondées l'année, ne avons ñooñu dañ leen section de recherche woo sûreté urbaine pour ñu laaj des informations. parce que sûreté urbaine amul information boobu suñ alors c'est clair par rapport à mais euh, de mais.